waaw Tara ñu ngi soxna Amy Ndoye. waaw. xam naa lu bari mën nga koo wax ci sa borom kër. Ahmed mooy mooy kan ban genre nit la ndax Ahmed bi ñuy gis ci euh, média bi euh, di wax ndax Ahmed boobu naturellement noonu la mel. waaw loolu liggéeyam la rek lu muy def la mais nit ku baax la nit ku gën la nit ku riche la nit ku bari valeur la. nit ku bëgg mbokk nit ku bëgg njaboot kon lu mën a am rek dañ koy bàyyee ak yàlla parce que yar nañu ci yar goo xamante ne euh, dañuy wax ne bu leen tiit bu leen ragal tànk yàlla ngi si dëgg te nit ku ne si dëgg yi tamit warul tiit waru ragal xam naa ko bu baax dañuy waxtaan lu bari xam naa li mu bëgg xam naa fa mu jëm te lépp ci dëgg la koy teg tooñul kenn tooñul kenn ñiy wax nag dañoo xamul mais lépp dañ koy delloowaat yàlla suñu boroom waaw. situation bi ba nga ko déggee rawatina accident bi soog bi ba nga ko yëgee noo ah, ndogal la rek ndax yàlla kenn mënul xëccu ak moom euh, amaana bu ko dalul fii dal ko feneen mu gën a metti mais dañuy sant yàlla ba ci yàlla wi seen ndox mu sedd loolu rek lañuy sante yàlla. Mm-hmm.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 samay doom ku góor ki billaay wallahi taala jëndal na ko oto jëndal ko velo te bu ko neexoon mu ne dañoo bokk ndey ak baay rek am naa ay doom samay doom laay defal duma defal sama doom rakk mais baax na yaru na yàlla nag ah mooy tegee nattu te yàlla nag suñu borom teggil ba mu dellu suwaat ci ñun ah yàlla baax na daal buur bu baax la ah man de démb bi ma ko déggee dama am lu ma naqari torop torop torop torop dem naa ba police ba fële di ko xooli fekk dugal nañ ko ba pare guddi googu nelaw ma te damay man ma tëdd ci kaw lal daal sama ventilo ki ma bokkal ndey ak xaw ma fu mu tëdd xaw ma ci lan la waaye ah.